Eh. Ini yaay ñoom maam mare mii nga def yaay nee na ñooru woo ko mësoo indi bruit mësoo indi bouga ku ragal nga nee na nag asaka yéeneem la indi nii waaw ba suba may ma dëgg la benn junni ca maam mareem benn junni ci mareem ñaari junni ca maam mareem ñetti junni ca maam mareem yaay ñoom maam mareem mii nga def yaay nee na ñooru woo mësoo indi bruit mësoo indi bouga ku ragal nga. nee na nag asaka la indi nii. waaw ba suba. may ma. la. benn ca Mam Marème. benn junni ci Marème. ñaari junni ca Mam Marème. junni ci Mam Oradan kakara Ulusdan kakara Malamdan kakara tubaar fakkaan la maasàllaa nii la traiteur yi def yow di avancé di dem di avancé di ñëw di avancé di dem di sër bi tubaar fakkaan la maasàllaa Aysatu waa sa doom ji nga xam ni la ci yow Yaasin ndax bu mamareem nekkee tantam Aysatu nekk tantam bokk ak yaayam nday ak baay kon yow sa doom la xam nga tubaab fakal la macha allah moo la placé peñe bu ni mut. peñe boo xam ne tubaab fakal la macha allah mi ngi nii. mu baax mi. ñaari junni ca raamata. ñaari junni ci xale bu baax aywa taw bi yërëm ñaari junni ca raamata. e juróom benni junni ca raamata mu jëm ci doomi naam fatel.

waa xanaa goro loo baa ngi. barke yonent bi. waa yow lii boo ko dajee yow di nga xam est ci nekk. waa a lu la sax ci réew mi. ku moom li ah, ah. du ma ko laal. <laughs> eh. ma sama garaas ma ñibbi.

woon yow xale bii toog waaye yaay maam Marème da koo yónni. nee na bii toog. maam Marème. maam ak kii bi ñuy ànd ba tey. bi ñuy ànd ba waaye nag yow Fatel. mënoon nga ne nag am génn naa télé rek wala succès rek xamatuma kenn. waaw loolu la mhm. waaye su ma dee ak cër bi may jox rek dama ko gis man yow xale bii toog waaye yaay maam ma dem da koo yónni. nee na bii toog. nee na. nee na. saa neex. maam ma dem. maam ma dem. ak kii bi ñuy ànd ba tey. bi ñuy ànd ba tey.